والله Sénégalais, corps diplomatique qui vivent au Sénégal, étrangers qui vivent au Sénégal, tariq, toutes tariqas confondues, chrétiens, musulmans, tous aimé Sidi Saliou pareillement, pareillement. Et tous ont senti sa disparition. والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة القر الكرام وحرمة الكهبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس الحسين وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود يا رب وما يسره من ملك فوق السماء وجاء كل شيء هدى من سالي أو مرسل أو حابل أو نازل maa ngi leen di siyaare te di leen balu ak. tey bale ak. tey fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen fàttali. li nu fi andi bàyyi nu fi. li nu fi andi te bàyyi nu fi. yàlla sunu borom. yàlla sunu borom. wala takunu kallazi nusila fa ansahum anfusahum. wala takunu kallazi nusila fa ansahum anfusahum. noo ngi ñaan nag. noo ngi ñaan nag. noo ngi sant itam. noo ngi leen di sant itam. tuub. tuub.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 loolu nag lu am solo la ci ci ci gendeeku ak ci seerlu loolu wane ne daal moom wàcc na ci wet yëpp moom ci digganteem ak yoon wi wàcc na ci digganteem ak jamono waaye wàcc na ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ndax def na la mu war a def ba julli fajar dégg nga bayar kuusam di werdu dégg nga dogal ba doo ko dikkee foofee لمن كان لي بالجود ووسع sëriñ saaliw mooy sëriñ tuuba sëriñ saaliw mooy mbaax sëriñ saaliw mooy yéwén muy loo xamante ni dafay mel ni fàggu la ndax bu fekkee gis nga turam rekk loolu lay tekki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 dafa amoon mission muy euh, liggéeyal Yonent bi sasam ci dekkal diineem ji ak aar ko ak tas ko ku ne ci njabootam yi nag am nga ci mission boobu loo ci jël sëñ Saaliw nag moom euh, tarbiya ruuxiya boobu sëriñ bi daan def mooy yar nit ñi ci wàllug yar seen ruu jàngal leen diine xamal leen yàlla defar leen bañ mën a àgg ci yàlla pàcc boobu dafa bokkoon ci mission yi gën a rëy ci mission nit la woon koo xam ne euh, nituk euh, xam-xam la waaye nituk jëfe xam-xam la ñaar yooyu nag mooy li nga xam ne lu taxaw ci àdduna loolu la ko taxawal muy xam ak jëfe melokaanam yi ñu ko gisee ci bi mu nekkee xalifa naka jekk laa ko mas a xame diirub ñaar fukki at doomu Sëriñ Tuubaa mënta bëgg àdduna ndax dafa xam li nekk ci àdduna dara lu nekk fii daf ko ñorul parce que moom nee na ñaari doomi aadama laa xam moom sëñ Saliou mu nekk ki nga xam ne moom day daw di ut àdduna ak ki nga xam ne dafay daw di ut yàlla nee na kii daw di àdduna àdduna day daw di ko sori kon nag moom xamoon na ne lu fi nekk topp di ginnaawam di ko daw amul njëriñ parce que di dàqee loo xam ne doo ko mos a dab amul benn njëriñ lan mooy bénéfice ba mooy ci teel nga jublu ci ki nga xam ne booy dem ca moom mu ngi daw la gàttalu donc lan moo waraloon koyofam googu lan moo waraloon taalibeegam googu dafa demoon ba jeex takk ci yàlla dafa demoon ba neenal lépp luy bànneex lépp luy loo xam ne mbiru bàkkan la. man mosuma gis kenn ku ñu ne doomi Serigne Touba du ci góor ñi du ci jigéen ñi koo xamante ni bi dangay gis nagu bëtam waaw maanaam li ñuy wax fixer regard togg saabu duñ ko def. waaw lu ñu mën di wax ak yow it dañuy wax waaye dañuy wàcc seen bët loolu yëpp am njàngale la waaw la ku tedd kiy wax di digal ab murit ci xaddul basar damu sab gis waaw maanaam du ñu ne xàjj nit di ko xool. Serigne Saliou ah vraiment il est exactement comme son père. exactement dans sa vie, dans sa pensée, dans son action, dans ses rapports avec les musulmans, avec les non-musulmans. Il m'a dit vraiment, euh, Serigne Saliou, c'est exactement Serigne Touba. Cheikh Sidiye moo tagg Serigne Bamba ne ko wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhi wa masaay nee na sikk si Cheikhul Qadim daal moom bu amee mooy jaamu yàlla gu ëpp ak ak ak teral doomu aadama yi di génnee di joxe ci alal allahu akbar ñëpp ko niru waaye sëñ Saliou bi ma jëflanteen moom keroog moom gis naa ne loola moom niru na ko ci moom ànd ak xeeb ko lool sëñ Saliou donn na Cheikhul Khadim ci lu bëree bëree bëree bëri nit ku effacé wu la Serigne Sall lu coow li bari bari bari bari balaa waxtu julli jot dana dugg ci biir waaj bu jullee pare li mu war a jàng ci ay xasida ak yooyu mu def ko li ci des bu génnee bu ñu soog a naan kafe ñu naan kafe leneen li ñuy def ñu soog koo def waaye li nga xam ne mooy digganteem ak boroomam faaw rek maanaam du ci am benn benn simili boo xamante ni mas na koo bàyyi ngir ngir jëmmi nit ñi. këram yi ko yàlla jox ci kaw suuf yépp muy dëkk yim sancal boppam. kër gu ci nekk ku fa dem ca njëlbeen ci néeg yu méngoo wut ak koo jàpp ne kilifa la lay doon ci dëddu àddina waaye la mu fay njëkk def mooy tabax fa jàkk kon kii tabax jàkk dëkk ci néegi ñax kii tabax jàkk dëkk ci ay seng loolu màndargam jaamukatu yàlla dëgg la. ñu ngi gane àdduna 1915 waa ci liggéey 2007 di koo xam ne euh, li ëppoon ci ab liggéeyam li nga xam ne mooy liggéeyub àdduna mooy mbay. loolu itam murit yi yëpp day mel ni loolu la leen sëriñ bi digaloon wala ñu ci euh, dénk njaboot gi maam Thierno daf ko maa ngi lay dénk. nga leen jàngal ak di liggéeye mbay dëgg la xel xom moo gën a yaatu ndax ku tedd ki amul tànki gannaaw tànki kanam la am bi xel xom daataan am itam fekk na fu nekk def na fa daara waaw moo xam njurul la moo xam xàbbaan fu nekk am na fa ay daara xel xom soog a ñëw waaye xel xom itam bu ñu gisee daara yam fa def muy ñaar fukki daara ak juróom-ñett bu ci nekk bu ñu xoolee tur yi rumus yi ñuy joxe turi daara yi ay daaru salaam ay daarul xuddus ay daarul mooti daarul minan nangam ak nangam daaru naim yooyu yëpp lenn lu ci nekk dañ cee mën a jàng lu bëree bëri. di ko ñaan yërmandeem ak njëggalam. di ko ñaan xéwal ñu daj ñun jaam ñëpp. akub jaamu yàlla. akub jaamu yàlla. yal na nu yàlla xéwal. yal na nu yàlla xéwal. yàlla na nu dimbale. yàlla na nu jëriñ. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ci barkeb xasida ak sëñ Touba ji may jàng. rabbi bima yashrahul azana qad fajaa jaahi afdali man lillahi qad lajaa di rabbin karim la sharika lahu sadri al yawma nuran saati an halaa muhammadun salawatullahi abadin alayhi doon xalifa sëñ Touba sanc dëkk yim dëkk yim sañc te liggéeyal sëñ Touba rek tax ci moom la njëkke xëy na nag mu jëggut moom ndax waaye gisaguñ ko ñun sanc got sanc xaban sanc njurul sanc lagan sanc ndookaa ak yeneen yooyu yëpp xelkom ji ci xilaaf ak sëñ Touba la waaye foofu tam liggéeyal sëñ Touba rek la fa doon def ndax lu mu mës a am ci liggéey sëñ Touba bi la jëm waaye daara yi di màgg di màgg di màgg ba àgg ci xel koom ji nga xam ne ñu bari moom lañ gën a xam fekk am na yeneen yi koy jiitu yu bare bari bàyyi fi lim boo xam ne bari na lool ci ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi doon yeewoo ci daara yi nga xam ne kon day mel ni daal moom liggéeyam daf ko jëmale woon ci tërbiya tërbiya nag jumtukaay yi mu ko doon defee mooy liggéey loo leen ci tool yi ak jàngloo leen alxuraan ak jàngloo leen xasida ak jàngloo leen xam-xam ñeenti élément yooyu mooy yi nga xam ne moo doonoon activité yi nga xam ne mboolem ñi doon yeewoo Xelkom yeneen daara ci des yëpp loolu moo seen liggéey. Xelkom bi ñu koy sanc daara jëf lu jiitu moom lañ doon wax huit Daaru Xuddoos la tudd daara jooja nag moom la ay mag nekkoon yoo xam ne ñoo daan liggéey liggéey bi nga xam ne santaane yu njëkk yi ñoo ñaa daan liggéey. santaane xel ko mi njëkk ya booba tracteur yi fa nekk yaakaar naa ñaar fukk ak juróom benn lañ mag ña fa nekk xam naa duñ sori juróom ñaar te juróom ndax par ñett doon bokk machine yooyu biñ fa bàyyee nag ñaari at jàpp naa bu ma juumul ñaari at la sëriñ bi doog a séddale suuf si fukki parcelle ak juróom xaaj xaaj bu nekk war naa war naa dem ci juróom-ñaari kilomètre boo moy tuut suuf xaaj bu ci nekk nag mu sañ sañ ci fa daara tabax ko biñ tabaxee daara yooyu ba noppi nag ñu ñoo ko sanc nii sëriñub tërbiya la boo xamante ne bii li gën a gaaw ci lu mën a jariñ nit mooy ñaqloo ko ci wàllu yàlla wax nan ko fii ci njurul benn bis boo xam ne dafa ne yoonu borom daf koo def muy yoonu ñakk jariñu mën mënee su cee jariñ ku ci ñaqul nee naa la sëriñ Saliou day day day wane ay yoon maam su demee mu xàll xel xol di fa bay yóbbu fa ay dogga dafay joxe exemple pour wane ne yoon waa nga ne moom dafay joxañ rek dëppi booba yaakaar naa mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu murit ñi nga xam ne sax xawoon nañoo suufental mbay depuis booba léegi jëlaat nañ mbay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 léegi nag muy ñëw ba jub daara ji di wàññeeku bari lu muy am lool daal ba xam naa dongo yi tamit mel na ni loolu moom xaw na xaw na leen a métti daal ba sëñ bi yëg loolu mu ñëw fa nag bis keroog bi ñëwee toog ñu tegal ab campagne campagne bi mel nii ko tegal ci ci wetu ci wetu kàdd gi mu toog lal basang yi dongo ñëw toog mu tàmbali waxtaan keroog li ma dégg mu wax ko mooy géej gi day gënaluma te waruma géej gi ma fi géej gënaluma te waruma daan ndax ginnaaw dangeen a wan ginnaaw seeni ndey ak seeni baay ak seeni dëkk ne ci àll bi di ma guddil di ma bëccëgal di ma naajal di ma keral di ma xiifal di ma maral loolu di ma di fi géej gënaluma waaye waxtaan woowu àggalewu ko maanaam ngir ngir yërmande ju bari naka mu tàmbalee wax rek ronko ñi dal di tàmbalee tuuru nga xam ne keroog la mu ko mottalee aw nag la daal di jàpp neexale ko waa daara ji ñu defar ko fi saasa daat ko xëlfa nga xam ne dañ koo def ci mbana yi ub ko bàyyi ko muy bax ba ñor ñun loolu lañ tuddoon xëlfa ñu daal di koy yekk ci kanamam gaa daal di ci nekk nga ne loolu la faje merum namm gi ko dong yi moon te gëj koo gis xam nga ba fi magam yu baax yi nekkee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 maa ngi sàkku it ñu def tawasulu ci tuub bi maa ngi sàkku it ñu def tawasulu ci tuub bi tawasulu gi nag moo di. tawasulu gi nag moo di. di sarax. di sàkk sarax. sarax soo xam ne tawasulu tuubal suñu borom rek lañ ciy xam ne tawasulu tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. si nag ko bu ci xeeb waaye xeeb dara sarax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara. suñ ko dajalee itam ñu ko a te fuñ ko dajale it nañ seet ñi ci gën a lot. ñu jotal leen ak jaamu yàlla. te ñu jotal leen ak jaamu yàlla. ñu ko jëm ci ñoom. ñu fab ko jëmee ko ci ñoom. noo ngi ñaan sunu borom defal na ci tawféex. noo ngi ñaan itam sunu borom defal na ci tawféex. gi ak ci jéggulu gi. mu nangul nu ko. mu nangul nu ko. xéewalam yu bari yi nga xam ne ko laaj it. yu bari yi nga xam ne dafa digle ko ko laaj it. ko ciy laaj. noo ko ciy laaj. xéewalam yi. ci xéewalam yi. ak ngëneelam yi. ak ngëneelam yi. ak ndimbalam yi. ak ndimbalam yi. Serigne Saliou lui-même quand tu le vois c'est la miséricorde personnifiée. regarde son rapport avec les enfants, dans les daras, dans les trucs, avec les musulmans, avec les chrétiens, avec toutes les confréries confondues. Tout le monde est unanime, c'est ça le côté primordial même de l'existence. De, de, de, que ce soit de l'humanité ou de la création, de l'existence même. C'est la miséricorde. Allah, il dit dans le Coran, Rahman al-Arsh c'est le miséricordieux qui s'installe sur le trône, c'est-à-dire qui, gère le trône. Le trône, c'est l'univers. Allah a créé le monde par pure miséricorde. bi n'a besoin de quoi que ce soit, ni de tànk yi nga xamante ni bii suñu borom moo def ab dencam ci ñoom jël leen ba noppi jël leen denc leen ci jigéen tout tànk yooyu nga xamante ni bii amuñu bàkkaar malayka yi di communiquer ak ñoom ku ne gis na ni mu leen fonkoon ak fi mu leen tegoon bàyyi gone bu nekkee ci wetam di wax lu dul noona ba wax luy nuru saaga sax du tax kenn ñi meen leen a tudd ngir fonk gum leen fonk te loolu jàpp nañ ni bokk na ci li ko gën a waral mooy li ñu amul bàkkaar li ñuy communiquer ak malaayika yi moom lépp ci ab euh, tërbiyaam Euh, ci yërmande la koy defee waaw nga xam ne day mel ni daal di leen toppatoo di leen berndeel day mel ni loolu sax ci lay yéege suñ bay jaxte wax sëriñ bi ne ko mburoo ki war gaa ci sukkër ngay naxay gone yow defar defar nga say gone may leen aw yaram wu nëtëx maanaam moom ci toppatoo leen ak wagar leen ak sàmm leen ak yërëm leen ak bañ ko leen dóor ci la leen di yéege moo leen ñu newoon ci daara ji di jàngale daf leen daan tere ñuy dóor nga xam ne day ngay jàngal gone ci di ko naxtaan fexe ba xamal ko te doo ko dóor loolu bokk na ci méthode bi nga xam ne ci la daan tërbiya soo dëgg duggee ci këram gu euh, sa këram gu sell kooku da gis xale yi xéewlu ci xéewal gi ba pare yéegaat ci kawam di di jël loxo yi di fomp ci jàllaabeem booba ak ak ak am na yër bu mu daan sol bu weex xale yi di ci fomp loolu mooy jàmmam musul bëgg ku laal benn xale. maanaam loolu yëpp am njàngale la li ñuy wane ni rek tout tànk moom sa doom ak doomu keneen a ceem ku ci nekk sa wet rek war warmaal ko te xam ni day xam loo xamul di yëg loo yëgul ndax malaayika yi ñooy communiquer ñoom direct. daf leen daan wax naan jàngale jihaad la soo dóoree nag daw nga xare nga xam loolu lépp day loo xam ne moom ñoom la noonu lañ ko jàppee soo mbooleem ñi daan jàngale ci daala ji ci noonu rek lañ daan tënkoo noonu rek lañ daan defe nii nit ñi bëgg ay feet ak yu mel nii ñaar dong lañu mayoon màggal ak gàmmu moom ci la cin li di soppeeku ba ñu xam ne cin li soppeeku la maanaam loolu Sëriñ Tuubaa ñaanoon ci bihidi ayaal yi bilaa kaay maanaam gindil ma sama njaboot te du ñu jooy loolu moom da ci daan taxaw kem kàttanam muy tool yi muy njàng mi du tee nag danga ko gis waaye moom lu mu ci yëg saafara ko amul genn amul menn mag moo xam ne gone dana séq ak yow lenn ci kaw su ba nga war koo dóor loolu mu amul su ko defee nag gone gi lenn rek lañ koy dóoree te bu demee ci bi du am ndam mooy daa dugg daa duggoon ci kër jigéen ñi kër jigéen ñi moom daf ko doon aaya donga yi ba nga xam ne gone buñ ci dóor moom nga perte moom waaye lu dul loolu nag loo doon doon mag boo dóoree gone bu ñëwee ci sëriñ bi boole danañ la jàppoo jàpp sa ñaari tànk ak sa ñaari loxo ñu jox ko bi yar mu dóor ba xolom sedd ñu bàyyi la nga dem tool yi tamit liggéey bi da wax ne bu ci dóor mënta ñàkk nañ ko bàyyi bu ci dóor mënta ñàkk nañ ko bàyyi njàng mi daana ci wax loolu bu ci dóor mënta ñàkk nañ ko bàyyi loolu lépp yërmandeem ju bari la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 looloo nekkoon ci dëndam te loolu rek la doon jàngale ci jiiru dundam. ku dem ci daaraam yooyu ña fa mokkale alxuraan alxuraan ju mucc ayib ña fa jànge xam-xam ba nekk kaang boo doon wër ci waxuma Sénégal rek boo doon wër ci àddina bi benn jëmm ju mën a taxawe noonu. ci moom la njëkk du ma nag mujjut ci moom waaye bët tegeegu ci nopp déggu ko. yoonu murit yoonu daan sa doole yoonu jëriñ sa bo kii la tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati sëñ Tuubaa moo définir moo définir loolu mais daal en moo mot daal sëñ Saaliw daal ni mu mel ci xale équation la boo xamee ne man ci sama bopp mënaguma koo difiniir définir xanaa yeneen i sociologue ca beneen ca kanam nu jamono gën a ñëwee ñuy gën a man maa wax sëñ saali wax xale sëñ saali ak liggéey sëñ saali ak tekkeeral joju sëñ saali boo xamee ne politicien bu ñëw influence boo mën a am mu ne su defar lu dul diine su mag defar nekku ji ak su mag yàq niwu ci توفيق ni ko ay taalibeem di déggee tey jii bu dee bind da nga daan gis buñ masaan toog nii mu jékki-jékki indi bernde yi ka wax ne ko be demal jëlil ma nangam ak nangam xam nga ab magasin lay doon boo xam ne yu bari dafay nekk ci jaww ji rek lay bind day bind ci jaww ji nii rek kooku bu daal di dem jëli ji ko ba bu dee bind ci suuf da demal woo wali ma diw bu ne bu bindee nii ba muy ba muy àgg mook effacé bi ñooy ànd su ko defee nga daal di dem jëli ji dama wax ba mu ji liyaar la ko lii xam nga ñaaree tàkkusaan li ci ëpp wirdul maaxuus ak yooyu ñuy jëfandikoo ak yooyu mel noonu daanaka tax na duñ nangoo duñu wax waaye yoo yu mel noonu lay jëfandikoo mu toog nit ñëw daat koy nuyu ziyaare ko xéewal mu def ko ci poos bi nit ñëw di ko bëgg a jox xaalis mu mel ni xaalis bi da koy lakk mu naan nii nii nii ma jàngat ci kon loolu ñun ñun lay waxal ju toog ndax man damaa gëm ne sëriñ bi lu mu def rek message la ana lan la ñuy wax kon na ngeen sàkku lu leew ngir man lu lewut du ma ko jëfandikoo. nee du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq loo xam ne yàq ak diine dara lu yàq ak diine du ko def. du jóge ci moom mukk. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. nee na li ci def nag yàlla yori jaamam te yërmande la leen yore. yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek. te yaatal ko lool. yërmande geeg yaatal gi day ñaan rek mu yokk. wax dëgg ci Masaalik ñu ngi wax ne kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi wala li yaxida sawaun intamaa ila jilaani aw intamaa li ahmada tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaab yoon yëpp ci yàlla la jëm moo xam mu tijaan la moo xam mu xaadir la moo xam yeneen bu a doon ni ma la doon misaale mu ngi mel ni autoroute boo dëkk nekk ci autoroute dangay gis ay voies ma autoroute ba am wala juróom voies yëpp ñu bokk fu jëm boo ci jël rek da ngay dem wala maanaam euh, réseau yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci réew mi mën nañ ci tudd yu bëree bëri waaye yëpp boo ci abonné da ngay am réseau di mën di wuyu di mën di woote kon tekkiwul ne bu fekkee da ngaa nekk ci benn kii compagnie téléphone du caagee ni ñeneen ñi ci def dañu am réseau noonu nag ni la suñ Tuubaa jàppoon tarixa yi ci def yëpp moom it sëñ sëñ Saalif radiyallaahu noonu la doon dundee ak ñeneen ñi ci des ñëpp jàppe leen ak njabootam ku fi masaan a ñëw mu jàppe leen ni euh, doomam wala rakkam wala carbaatam loolu nag taxoon na ñoom ñooñu nga xam ne ñoo bokkuloon ci yoon wi kenn ku nekk am loo ko ëmbal ci ak cofeel ndax suñ tubaa loolu mooy lim li mu doon doxee gisuñu fenn fu mu bind ne euh, ku jébbuluwul ci man doo am nangam ak nangam ku bañ lay wax waaw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 def ci jiitu jiitu tarbiya bil xudwa maanaam nga xam ne moom mooy mel ni nga xam ne ni la bëgg nga ni la bëgg murit bi mel ko su ni melee nag moo tax murit bi itam su yàggee moom day yëkki-yëkki mel noona loolu façon yarin la maanaam mooy yow melal ni nga bëgg li ngay digle yow mel ni ba noppi soo ni melee rek bu yàggee ñi ci des ñu nekk euh, topp ci sa ginnaaw mel na nga xam ne ni ni nga bëgg façon yarin boobu mooy li nga xam ne kon tax na lim daan bëgg ci murit bi lépp dana koy am te ci sonn lool lool lool mooy tarbiya bil xudwa lañ koy wax waaw baax di ñu jébal ci bu baax a baax yaa ngi tàgg tax yi ko war bañ ko defar ak aw ji woo farayam képp koo xam ne ndaw luy doog a dugg àdduna nga dal war ngaa royee ci moom nangoo liggéey ndax pour def lu toll ni quarante cinq mille hectares yoo xam ne liggéey dunde sow ñaq rek moo tax nga di ko def loolu kuy ndaw loo xam ne yaa ngi ko def royukaay pour loo toog yaa caara da ngaa a liggéey di dunde saw ñaq bi ko ñaareel mooy kuy ndaw lu koy def royukaay war nga fonk xam-xam ndax fépp fu mu mos samp daara samp na fa koo xam ne dafay jàngale muy kuy jàngale alxuraan muy kuy jàngale xam-xam kuy ndaw lu koy def royukaay war nga fonk jaamu yàlla ndax fépp fu samp daara jàkk moo koy jiitu jàkk ji lañ njëkk natt ba noppi te moo daan doon imaam bi mooy jiite ba ni mu dem ba màggee ci la ko bay waaye loolu jàkk daara jum dem mooy nekk imaam bi mooy jiite kon ñaa ñett yooyu liggéey ak sàkku xam-xam ak jaamu yàlla ndaw loo xam ne def nga loolu war nga ci góorgóorlu te xam ne mooy li nga xam ne moom moom la defoon ab liggéeyam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 yàlla sama borom su yonent bi maa ngi tuub tuub tuub sama borom jaam yëpp maa ngi sàkku ndimbal yàlla ak xéwal yàlla yi da koo def ngir may ko jaam yëpp am soxla te buñ jeexee te buñ ko laaj waaw ñu ngi ko jaay lu gën a lu gën a kawe laaj ko ñu koy laaj xëy ak sant ko ku mel ni sëñ Saaliw la waajuram bu baax ba waxoon xarabat fulaat ya maaxudaati masa zamaani nee na sama empreinte day sax ci àddina ba àddina tukki dootul dañ kon nañu roy ci moom ci ay ak jikkoom ak liggéeyam ak dalja ak wax lu baax demoon na ba buggoon na Sëriñ Tuubaa daaw ko wax Sëriñ Tuubaa Seexuna rek la daan wax waajuram muy muy Ahmadul Xadim Sëriñ Tuubaa fa mu nekk bis bu nekk la muy jot ci aw yiw loo xam ne bokkut ak kamu doon ak la mu amoon ak lépp loolu kenn mënu koo jeexal loolu bu nu ko walbatilee fii ci senegal rek réew mi naat nañ fexe ba jikko yañ nekkoon seen njàngale seenu yarin seenu doxin ñu koy inspiré wu waxtu wu ne di ko dund di ko dundale mooy tax yàlla mën ñoo yërëm yàlla mën a wàcc yërmandeem ak tawfiq ci kaw suuf. dugguñ fi ci saayir dugguñ fi ci baatin ñu ngi ñuy dégg ñu ngi ñuy gis nan jéem a tënku ci liñ bëgg jéem a daw seeni tere bu fekkee bëgg nañ bu ëllëgee niñ meloon ci seen jataay yi saayir yi ñu mën ko ay jataay fa moom. lu nit ñi gën a bare di ko di ko di ko di ko màggal seek di ko ziyaar rek di nga gis ne si ci la gën a. jox boppam yàlla ci la gën a taamoo tumuraanki wéetal boroomam ngir jox ko boppam kon mën nañoo wax ne ñi aju ci moom lañ ko jox loolu lay jël jébbalaat ko boroomam nit moom bu la mbir bettee dana la jaaxal biñ demee ba dellu si nag li yonent bi digle woon ne nañ ko defal képp ku fi jóge ci lañ daal di sax muy di ko di ñaanal ñaanal ga moom dañuy dañuy dañuy dañ doon taasu rek ci barkeb sëriñ bi nam sàkkoo ñu di ko ñaanale mooy yàlla defal ko li gën a li gën ci lu dee si ñaanal jaam boo xam ne dafa rafetal maanaam foofu lañ féetale woon sunu ñaan li gën ci lu yàlla defal jaam rafetal daal na ko yàlla defalal fa mu nekk sëñ Saliou mooy ki nga xam ne daanaka dara ci àdduna ñoru ko woon boo déggee ma ne daanaka dara ci àdduna ñëw ko woon moom dafa ne woon dégg naa ko mu naan nit ñaari biir la am nee biir bi nga xam ne moom moo nekk ci jëmmam nee na ak biir bi nga xam ne moom lay fekk ci biir bàmmeel sëñ Saaliw yokku ne ki nga xam ne moo gindeeku ki nga xam ne moom moo sori yoonu réer ak yoonu sankute mooy kii nga xam ne jëmm ji nekk ci biiram da koy def muy usine boo xam ne day liggéeyal jëmm jee fekk ci biir bàmmeel ba parce que nee na biir ba nekk ci biir bàmmeel ba boobu rek mooy mujj te moom mooy njëkk te moom mooy dëkk li nga xamante ni ni ci àdduna ñun ñëpp moom la ñu xéentawut mooy alal yaakaar naa suñu borom jox ko ko ba mu doy sëkk bu fekkee da ngay xëcc daraja sunu borom jox ko ko ba mu sëkk bu fekkee da ngay xëccu mbooloo sunu borom jox ko ko ba mu doy sëkk te ma mësu cee gis dara lépp suñu borom la cee gis maanaam kon kooku maanaam dafay jàngale sax te du wax ba tax na kon jamono ji ñu toll Serigne Saliou namu nañ la. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. dama koy ànd ak dama koy ànd ak yéen rek. ci ci kaw. ci kaw. ñii ñii moo ma jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo dama leen di rek. bu ma jiitoo. dama leen di jeex leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. bu ma séen kenn gisuma leen mu dëpp dajeeg yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp dajeeg dajeeg yéen. waaye dama leen jël topp yéen. man kon kon kon bu ma lii bu ma dajee ma jëlee damay dëpp day day day bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk.